sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey. bismillahi rahmaani rahim. allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. ورضي الله عن شيخنا احمد بن خادم الرسول وعن جميع خلفائه واهل طريقته الى الله الحاجة عن جميع المؤمنين mbokk jullit ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkal ci daje bu am solo bi di ñaanal as Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi loolu tëwér di ko ñaanal kilifa yëpp di sant yàlla bu baax ndax dañu fay ñëw ngir suñu waajur soxna Kuli Ndiir waaye fekk suñuy wëllëre suñuy soppe suñuy jëwriñ yoo xam ni yàgg nañu seq liggéeyu Sëñ Tuubaa buñ ci tuddee ku mel ni sëñ Baxaw Jenn ñu bokk Kanzul Muhtadin muy jàmbaar lool am taxawaay bu am solo boo xam ni mbooloo moom ràññee nañu ko ci liggéeyal sëriñ bi ak kuréel gi ñu yore muy kuréelu Sarsara ca Mauritanie muy barab ba sëñ Tuubaa nekkoon muy am yéene di ci teew yàlla dogalu ko waaye addiyam di ci teew bu baax suñu wëllëre sëriñ Babacar Diouf di wóllare wu yàgg tey barab bii ci lañu dajawaat daara ji am noonu ca ginnaaw raay daan def ay ngont yoo xam ni ñu ko tuddee ngontum soxna jaara di ko jagleel jigéen ñi daan ci def ay mawduwaat yu am solo aljuma ci ngoon mu ci daan teew duñ ci wéttali di ci développé ay thèmes yu am solo ci wàllu xam-xam xam-xam boo xam ni bu leer la ànd ak ragal yàlla Eh, ñu def ko at yu xaw a takku yàlla boole ñu kóllëre ko nga xam ne Sëñ Tuubaa moo ko lal ak xam-xam ba tey ñu dajawaat fii eh, gën a yeesal wi ni ko alxuraan waxee bu aw foofu bi ahdi inna ahda kaana mas'uula kóllëre moom dañu ko war a suuxat ndax bokk na ci yàlla ji laaj ëllëg moo mbokkam ñii di sëñ Xaadim Njaay ñu ko borom daan def ginnaaw raay léeg-léeg sax ñu woo di ma waxtaan loo te xëy na waxtaan loo xam naa ne ñoo ma ko gën a xam gën ma koo jàpp waaye loolu day wane taarub lislaam ak yaatug lislaam euh, tey nag barab bi xamu ni jëmm yéen ñi fekk muy fédération Safinatul Aman Touba Lambaye ngeen am mag ñu baax mag ñoo xam ni bu gëm Sëñ Touba jafee lañ ko gëm boo topp Sëñ Touba jafee lañ ko topp muy Serigne Babacar Thiargane Serigne Aliou Diouf Lambaye Serigne Momar Mané seen dogu gu mag boobu ñu dogu woon ci topp Sëñ Tuubaa ba mu jaral leen joxe seeni deret ak fit bu dëgër bañ ci àndal ba Sëñ Tuubaa faye leen lu leen faye tax ñooñu ñoo taaral ñu couleur pencum Lambaye yëpp ci bawal ndax gëm gi ngëmu Sëñ Tuubaa ak dogu gi te teg ko ci fit ak bëgg te booba gëmi Sëñ Tuubaa noonu yombul ndax tegoon nañ ci euh, jël sa bakkan tegoon nañ ci fitna yu bari waaye ñoom ñu loxo saa rek kon mat ñooñu mat ñu baax lañu kuréelu Sarsara nag yàlla dogal mu nekk ci bopp bi ñu ngi ànd ak suñuy waajur soxna siine bu ñang di suñu waajur ak soxna Seyna bu Fall di suñu waajur te ñoom ñaar ñëpp itam euh, seen cosaan di làmbaay ak soxna Maam Jaara Cax ñu fekk fii soxna Ndeye Rama Diack yaakaar naa ni ñooñu laa fi gise boobu bu fekkente ni amoon na yow sama ginnaaw soxna Oly itam daaw yàlla dogal ñu ànd liggéey bi ñu def fii dem ba Mauritanie jàll dem ziar di Sarsara muy ku am pas ku am taxawaay ku bëgg Sëñ Tuubaa donte sax yaram wi mayu ko ko lool waaye dañuy wax ni xool du màgget nit mun naa dem ba ay cëram tële yaramam tële waaye xol ba moom toujours day bees ci bëgg lam gën a bëgg te loolu mooy bëgg gi sëñ Tuubaa mhm. moo tax euh, sëñ Tuubaa dafa ubbi fenêtre yu bari ñu ko mën a liggéeyale bokk na ci xitma bi comme ni ko waxee bokk na ci joxe ci hàddiya ñaar yooyu yëpp bu jàpp bu jàppandiwul tam bëgg gi rek liggéeyal la te bëgg gi incha allah dafay am jeexit ci nit ki waaye ëllëg yoo ma xëy itam dafay jël nit ki lu bari ndax sàmm arab ba ba mu ñëwee ci rent bi sallallahu alayhi wa daf ko laaj ni ko yowmal xiyam kañ la mu ne ko lan nga ko préparé loo waajale yowmal am mu ne ko du dara du julli woor du azaka du dara xanaa bëgg si jëm ji rek mu ne ko almaru mahamman ahabba nit ku nekk nga bëgg ëllëg fa mu jëm ngay jëm ci riwaaya nettali nañ ni si méjjow paxa doon na jàng alxuraan di gis yàlla yow ma yi muy wax da ci tëkku nit ñi bés pénc méttiwaay baag tàngaay baag fitna yaag cay xew ni ko alxuraan détaillé nga xam ne tuddee na ko lu ne muy bisu tiit nga xam ne jigéen sax ju ëmboon doomam dana ko imbi ngir ngir ngir tiit di nga gis ngir bu judd bu jaw ci saase ngir tiit bi ko loolu jaaxale ba mu dellu ci Sëriñ Tuubaa sëriñ bi daf ko ni na nga dellu ci alxuraan ba xam doo ci gis jenn yow ma dal sa xel ba mu delloo ci alxuraan gis yow ma na doon kullu unaasin bi imaamihim yàlla ni kenn ku nekk dañ la atti sa turu bu tuddee njiit la rek ñu jóg ñu ko gëmoon topp ko ànd ak moom mu ne ma jaw ndax suma jiitoo ngeen topp sama ginnaaw seen xel du dal mu ne ko ah mu ne ko noonu lay demee loolu nag la kay maye mooy euh, teg sa tànk fa Sëriñ Tuubaa bëgg dañuy wax ni sax euh, Sëriñ Saalu leeraloon na ko mënuma roy Sëriñ Tuubaa loolu pexem seytaane la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën ci li yàlla bind waaye yàlla daf ñu koo joxoon rek nañu roy leen ko roy leen ko dañu ko royloo xëj na amee na jëmmi nit ñuy gis mu amee bopp amee tànk amee loxo di dox di wax te mu wuuteeg nit yi lépp waaye nag ci ci bind moom nit rek la ndax qul innama ana basarun mislukum yuuxa ilayya nga xam ne kon li ko wuute rek nit ñi mooy diggante ak boromam ak communiqué bi muy communiqué ak boromam ak biiram waahiram nag mën nañu atte gi nit rek la nit ñi waaye lu muy baax baax yàlla daf ñu ko royloo kon Sëñ Tuubaa itam eh, daf ñoo daf ñoo digal ñu roy sunna Yonent bi sallallaahu alayhi ci lépp léeg-léeg sax ni jamono tëridee ni jamono yàqoo yi bees am waxtaan léeg-léeg nga dégg koo xam ni la muy wax ak li Sëñ Tuubaa jàngale sore na ni penkob sow te ñooñu koo ci doon corriger fitna mën a am sëriñ bi dafa am yoo xam ne moom la engagé diggante ak boroomam am fu mu ni woo am lu mu ni digal am lu mu bëgg mel ko noonu nag ku ko melul ku dugg ci Euh, loola mu woote ku ci cercle boobu pour nga boole ci sa bopp ci Sëñ Tuubaa daanaka yaay boole sa bopp ci Sëñ Tuubaa mun na am moom du la boole ci moom ndax azabta fawran di sewaana la man lay sa yakunu muminan yaasa zaman yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xam du ab jullit bu sotti dëgg dëgg jullit dàqu ko bu mu bokk ci man bu amul carte de membre adhéré wul te pour nga adhéré faw nga nekk ab jullit ndax wala tamutunna illa wa antum muslimun da yàlla wax lu mun di xew fexe leen balaa ngeen a faatu ngeen nekk ay jullit loolu la yàlla bëgg ci ñun tegaat ci azhabta foral li siwana kulla man laysa yakunu musliman yaza zaman képp koo xam ni nanguwuloo nekk ab jullit ab jullit muslim mooy koo xam ni da nga nangu pratiquer li yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy juróomi ponk l'islam yi nga xam ni daf ko ko digal te Sëriñ Tuubaa jàngale ko insisté ci lool bëgguñu nekk foofu mu ne képp koo xam ni nanguwul loola na nga ko dàq na génn bokk ci man ba mu ca teg mooy adapta foran li siwaana kulla man lay sa yakoonu muhsinan yaada zaman ku nangu rafetal rafetal sa lislaam rafetal seen gëm rafetal sa diggante sa doom doomu aadama yi say dëkkandoo say mbokki taalibe te mu nekk lu xaw a jafe nag léegi lu xaw a jafe ndax nit dana bokk ak nit daayira ba pare di ko jëw nit dana bokk ak nit daayira di yàq deram nit dana dëkk nit di ko dimbali nit dana dëkk nit dëkkandoom di ko tooñ di ko lor loolu ak lu nit nekk fa te Sëñ Tuubaa mag ñi mu àndaloon daan leen yar ñoom muccoon nañu ci loola ñoom ñëpp dañoo nekkoon ay jullit yu sotti bëggante soppante di liggéey di Sëñ Tuubaa ñoo ñooy dégg dëgg murit yi waaye kañ doon liggéeyal lam leen fayee pay gi ba léegi bi ci ku jaar ci yoon rek Sëñ Tuubaa fay leen lam fayoon mag ñi jafe na nag waaye góorgóorlu rek góorgóorlu bu baax ndax mag ñi coono yañ daan daj ñun dajatuñu ko dajatuñ ko ndax euh, daanaka dematuñu ci tool yi dematuñ ci tool yi ku jur sa doom yaay xool kala neex nga tuddee ko ko joxatoo ko sëriñ bi yaa koy éduquer sa bopp yaa koy encadrer sa bopp yu bari xëj na jamono dem na ba imposé wuñu ko waaye kon yu bari woyof na di fi des rek mooy kon ñu rafeteel bu baax loolu lu lu am solo ndax jamono dafa lëcc dafa lëcc te yii bari na te Sëriñ Tuubaa jàngale na ba tàyyi yeete na ba tàyyi xamle na ba tàyyi boo demee ci Masaalikul Jinaan dafay mel ni jamono bii la ko bindoon li mu dénoncé ci sëriñu jamono sëriñu jamono li mu ci dénoncé woon lépp ñu ngi koy gis ndax waxoon ne li ëpp ci jamono bi sëriñ si ay fiir lañu exploitation moo fi am topp nit koo xam ni mën na lu bari ndax suñ tubaab dafa ni képp ku jàpp ci ak ku àgg ci yàlla da àgg ci yàlla ku jàpp ci ku àggul ci yàlla du àgg fenn dem nañu ba lépp ci aada luñ koy teg daanaka réalité mu amatul moom xaqiqa ba déedéet lépp ci aada luñ koy teg ki ngay jébbalu di ko jox sa bopp sax nam waroon demee léegi bàyyi nañ yoon woowu te ni ko sëñ Tuubaa jàngale woon mooy ci wàllum wax xaqiqa ki lay tarbiya di la defal ak tarbiya tarbiyatu ruux yi di yar sa ruux di la malale ak sa boroom ba nga nekk insaanul kaamil kooku mun na nekk benn mécanicien boo xam ne sax ci moteur oto yi lay yendu mën na nekk benn menuisier boo xam ni day daaj ay banc mun na nekk ci pàkk bi ngeen nekk di pàkku làmbaay di dugg génn mën na nekk ku ne waaye nag ñun dem nañ ba jàpp ni kooku xëj na mooy ki kaalawu mooy ki am oto mooy ki moo mooy ki am bayra mooy ki ñëpp topp te loola ni mu waxee ci mujjub Masaalik moom Sëñ Tuubaa ci bëyit mu mujjee wax na ni bari na ku siiwee daraja adduna bi yëpp di ko tudd mbooloo topp ko mu am daraja lool fekk fa yàlla boolo sax moo ko ëpp daraja loolu Sëñ Tuubaa moo ko wax kon yooyu mat naa xam ne mat naa ràññee waaye nag fi ñu toll nii lu ci waaye mën ngir xam lu sa diine lu ci waaye mën ngir xam lu lan moo yoonu murit na nga ko xam lu man damay faral di jaxasoo ak naar yi naari gànnaar yi dañu nekk ay murit saadix yoo xam ne seenu murit ñu ngi koy male ci biir al wirdu maaxuus di ko liggéey te gën Sëñ Tuubaa gëm boo xam ni boolewuñ ko dara ñetti dul ay murit sax am na jamono ba ñu demee sax saara di def benn cérémonie officielle dañu def témoignage bu am solo dañu ne ñun dey ñun dey am nañu ay tarixa am nañu ay sirri gëm nañu leen lool ñoom la ñu topp waaye gëm nañ ne lu yàlla may seen sëriñ seen tubaab mayu ko sax suñuy sëriñ ba demee ci diwaanu Bayda ay diwaan yi diwaan yi diwaan yi ay abiyaat yi abiyaat lañ ko tagg nu ne waxee nañ ko seen tubaab tagg bu ne tagg nañ ko ko moo tax kon sëriñ bi moom ak ñàkk moromam leer na àddina yëpp ñun tey ñoo war a góorgóorlu rek war a góorgóorlu rek incha allah ñu ngi jéggulu ngir xataayu waxtu yi eh, lii ñu wax itam yàlla ñu yàlla xiir dimbali ñu ñu jaar ci ndax lu baax itam euh, chance la rek boo xam ne yàlla ci xiir nit dimbali ko laa xawla wala quwwata illa billah kattan amul pexe amul ku yàlla dimbali rek innaka la di man ahbabta walakin allah yahdi man yasha moo la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne ko du ku la soob mu jub déedéet man maa xool ku ma soob rek mu jubal ko ndax nit ci biiru ndeyam ni ko yonent bi salaatam jàngale am na ci tolluwaay boo xam ne bu ko tolloo yàlla dina yónni malayka ne ko demal nga bind gone googu ci biiru ndeyam su juddoo ba muy faatu day bokk ci woy texe yi wala ci woy texeet yi bi ko yonent bi salaatam waxee saxaaba yi dañ ñu kon jaratula sonn ndax yàlla programme ne ba pare mun leen déedéet te amaloo kullun muyassarun limaa xuliqa lahu jëf leen rek ndax kenn ku nekk yoon wa tax yàlla bindi la dana la ko yombalal ki ki war dem aljana yàlla dana ko yombalal mu nekk ci jëfi kuy dem aljana boo dem safaan ba itam ci yoon rek lay jaar waaye ñun dañoo am chance am garantie suñu chance ak suñu garantie mooy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul rawatina nag xasidaam yi nga xam ni ku ci jàpp ku ci jàpp fa xasida yi mujjee ngay mujjee te mooy yow ak moom ba aljana rek garantie boobu nekk ci xasida yi nga xam ni ku ci sax te sellal ko noo mën a mel tôt ou tard da baax ndax loolu day jeexital sa xol da nga dem ba bëgg lu baax dem ba seexlu lu bon te gis ngeen ndawi jamono yii bu njëkk mag ñi meluñu woon loolu xale yi nekk ci université ak ci lycée yi jóg rek dal xasida yi jëm ci lañuy jekki-jekki rek daal di baax dama ko wax daayira boo xam ni maa leen jiite bés ñu toog seen waajur toog ma leen di soññ ma ne leen lii am <laughs> da ngeen xam ne du seen liggéeyu ndey déedéet du seen liggéeyu ndey lii am ndimbalul seen Tuubaa la waaw ah, Cheikh Béthio dama ko mos a dégg bés mhm. am solo magam ju mbokkal ndey mhm. dañoo toog mu ne ko Thioune mhm. li lépp sa liggéeyu ndey mu ne ko déedéet du sama liggéeyu ndey ñoo bokk ndey xanaa ko yow nga am ko lii la ko wax xanaa kon yow gàllankoor mu ne ko déedéet ndimbalu sëriñ bi la te dëgg la ndax ñoo bokk ñoo bokk ndey magam jooju kenn xamu ko te moom am na li am kon loolu dafa mel ni misaal bu laar la du liggéey ndey ndimbalul sëñ Tuubaa la te ku jàpp ci xasida yi loo bëgg a mel incha allah da nga ko mel te bu fi kenn xëy nag jàng jàng jàng fu euh, ñaar fukk juróom ñett wakaanaa xan ba mu tax ba tax nga jàpp ne yaa gën kenn déedéet boo ko gisee rek mu réer la waaw loo def loo góorgóorlu rek jàppal ni tàmbalee goo sax Sëñ Tuubaa noonu lañ koy jëfalee loo jëf-jëf jàppal ni tàmbalee goo te jéem a xent bu baax nag yëf yi nan la ko sëriñ bi bëggee waaw loolu moo ci am solo li ëpp nag ci wax ket yi réeral nañu ñu bari réeral nañu ñu bari surtout boo demee ci internet bi ak yi xew ndax kii wax communication dafa am solo te nit ñi am na yu ñu gën a soxla dama koy faral di wax am na yu ñu gën soxla yu ñu leen war a wax ndax dajal dajale yi nit yoo xam ne am na ca ñaar yoo xam ne leer na ma ne xamuñu faratee jàpp ak suñuy jàpp ñooñu ndax waxtaane woon loolu ñu jaruñu cër gënul waaye ñenn ñi dañuy communiquer ngir seen poos te l'islam dafa am communication bu mu soxla te jamonoy communication la ñu toll yonente bu yàlla mos a yónni daf laa communiquer lu boo xoolee wa adin fi naasi yatika wa adin fi naasi eh, ah. déedéet waa Zine Fidna jaata ko riyaalal waaw wala kulli daa min wala kulli daa min yaatee min amiq min kulli fajin amiq mm-hmm. loolu laa ci soxla woon. bi yàlla loo Seydina Ibrahim ngir ñu aji wa min kulli fajin amiq loolu mooy gox bu gën a ci àddina na ngeen fexe ba lislaam àgg fa ba ñu xam luy lislaam Sëñ Tuubaa leeraloon na ni communication bi bokk ne ci moyen yi noonu lislaam yi di bëgg yàqee lislaam loolu waxoon na ko raamon qidaara diinina islaam daal di wax ni bil kaydi wal ixraaj wal i'laam nee noonu lislaam ci ñett tii lañ faagaagale lislaam ba ci njëkk mooy pexe teg ay pexe ndax yonent bi sallallahu ay pexe la ñu tàmbalee ak moom ba ca des nee na mooy génne gi ñu ko génne muy exil bi ñetteel ba nee na mooy communication pexe ba communiquer joxe information bu bon déstabiliser l'islam ba nit dootu ñu am sax dëgg dëggi pas-pas bi ñu bi ñu amoon loola pexe tubaab yi la te mosuñ cee jóg waaye ñun am nañu